une crise au mois de juin. Vous avez dû taper sur la table. J'ai pas tapé sur la table. On a eu une crise au mois de juin. Non, on n'a pas une. crise politique. Non. Attends. Au mois Voilà, d'accord. Xam nga Maïmouna euh, defe naa sur le secteur de l'éducation des efforts importants ont été faits et il y a eu des tentatives politiques de déstabiliser l'école et ça n'a pas marché. Alors que ce secteur-là était très sensible à la situation politique. mais daaw on a vu que le secteur de l'éducation avec toutes les tentatives nga xam ne nit ñi dañoo def ay déclarations nañu taal école yi ay nit jóg sax jéema taal école yi on est parvenu à sauver l'année scolaire sans rattrapage le quantum horaire je défie qui que ce soit de dire que l'année dernière l'année dernière 2022 2023 am nañu problème quantum horaire ci éducation nationale bu Sénégal amul amul benn deuxième aspect tey Sénégal suñu système éducatif ñu ci àdduna bi lañ nekk mënuñu ñëw ne dañuy def lu nga xam ne kenn deful mais ci en terme d'avancée sur la qualité en terme d'avancée sur euh, les transformations appro appropriées bokk nañu ci réew yi ñu gën a ràññee ci Afrique ak réew yi ñu gën a ràññee ci àdduna bi waxuma rek résultat yi président Macky Sall def fii mais dafa bokk ba tey kuy jël initiative sur dans le secteur de l'éducation parce que ay am na ay organisation yu internationale yu nga xam ne dañuy jël ay initiative bëgg ay président porté ko parce que dañoo am ay résultats sur ce secteur là su fekkee wàllu amélioration cantines euh, scolaires yi bu fekkee innovation la bu fekkee ne attendre les objectifs de de renforcement euh, des ressources humaines su fekkee euh, sur le numérique la ku jël initiative yooyu te yooyu bokk na ci yenn yi nga xam ne moom mooy axe yi nga xam ne moom la ñuy bëgg a transformer école temps yi da ngay bëgg président Macky Sall ñëw fekke ko mbaa ndawam ñëw fekke ko bokk ci initiative yi ma ne loolu bu ñu koy wax fii Sénégal bu ñu ko defee bu ñu ñëwee fii Sénégal bu ko nit ñi wax waxuma rek ñu gëm ko mais dañoo war a taxaw xool lu tax loolu ndax lu justifié la ndax am na retour ci biir tey man ak les syndicats tey man ak les syndicats de l'enseigne de l'éducation nationale de l'enseignement moyen secondaire ñoo nekkoon de discuter de discuter sur le devenir de l'école et sur les conditions pour que la situation politique nationale mënul am impact ci système éducatif bi defe naa def nañ ci ay jéego yu mag de par et d'autre on a soulevé question on s'est parlé on s'est entendu et suba dinañu finaliser benn mënuma wax protocole d'accord parce que ay entente la ci yenn affaire dinañ finaliser benn document bu ñuy signé ñun ñëpp nga xam ne ku ci nekk teg nga ci say préoccupation dinañ am stabilité sociale. Euh, jàpp naa ne li ma gis ak li ma wax ni tey. attaques yi waxuma duñ ñëw mais defe naa asseoir nañu les condition yi nga xam ne bu ku nekk taxawee sa taxawaay bi nga war a taxaw gouvernement du Sénégal taxaw taxawaayam bi mu war a taxaw te jàpp naa ne dinañ ci taxaw parce que yooyu instruction laa jot ci premier ministre moom laa jot ci président de la république syndicats yi tamit jàpp naa ne ni ñu taxawee ñëw wax ñu discuter ñoom tamit dinañ nekk ci conditions yi ñu jàppalante bu amee ay problème ñu créer les conditions pour dem régler ko defe naa bu taxawee ci loolu attaques yi ñëw de l'extérieur pour le l'école